tey nag dañu woote woon parce que bu ñu ubbee li nga xamante ne nii moom mooy session ordinaire bi dañuy ratifier maanaam commission yi nga xam ne ñooy 14 commission permanente yu war a def liggéey dañuy woote plénière boo xam ne dañ koy ratifier ratification boobu nag niñ koy defee moom mooy dañuy def plénière boo xam ne président bi day ñëw woo secrétaire yi ñu liir. membre commission yi assemblée di voter par oui ou non pour ratifier commission yi bu ñu ratifier commission yi ba pare nag commission des lois woote ñu mettre sur pied le bureau des commissions c'est-à-dire président commission yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ toftal ci ñoom vice président yi ak rapporteur yi donc loolu moo wund tey plénière bi parce que plénière la boo xam ne c'est statutaire parce que loi bi dafa wax ne bu ñu tijjee session bi dañuy def élection bureau bi plénière ba ci topp ci la ñuy def pour ratifier li nga xam ne mooy membre commission yi avant commission de lois di daje ëllëg wala gannaaw ëllëg pour que ñu def bureau commission yi donc loolu moo waral euh, li nga xamante ni mooy woote tay bi jërëjëf.